Avec Gaia Info, obtenez des informations sûres et fiables. daal di des ci bis bu màgg bi ñu dëgmal mu di gàmmu di ganeek jamono ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu koy waajalee fu nekk fii ci senegaal rawatina nag dëkk bi di Tiwaawoon ndax bu nee Tiwaawoon xel yu bari dina daal di dem ci gàmmu ba tax kii di soxna maam Faati Mbàkke bu sëriñ Moustapha Bachiru féete foofu la ca Tiwaawoon daal di fay amal jëf ju am solo muy ab set setal ngir waajal gàmmu gi ak teeru gan yi nga xamante dañuy bàyyikoo fu nekk Sénégal rawatina Tiwaawoon di fa amal li nga xam ne mooy mawlid ci sëriñ mun Mountakha ci la kii di soxna maam Faty Mbacké daal di amale jëf joojule ginnaaw bi nag soxna maam Faty yamul foofu waaye dafa daal di dem ci quartier bi di quartier si Ahmed Tidiane Serif fekk fa mbokkam soxna Aïda si baax ñu daal di la jëwriñ ji ñu teg mbale mi ci loxoom daal di wàcc ca mbedd ya góor ak jigéen mag ak ndaw daal di amal jëf jile bi ñu noppee nag kii di Abdou Aziz Mbaye daal di fay amal waxtaan bu am solo ci diggante ñaari soxna yu tedd yi waaye diggante ñaari kër yi di nga xam ne mooy mooy Touba ak Tiwaawan amal fa waxtaan wu am solo lool. kon lii moo nekkoon jëf ji nga xam ne soxna Aïda Sy Dabakh ak soxna Maam Fatim Mbacké bu Serigne Moustapha Bassirou amal nañ ko fële ca Tiwaawoon waaye mu nekk it exemple boo xamante ne exemple la bu rafet ci Sénégal rawatina nag ndaw yi nga xam ne ñoo féete ci ñaari kër yi ci ñaari kër yi di Touba ak Tiwaawoon. ko asalaamaaleykum ñoo ngi fii ci Tiwaawoon dëkku Seydil Hadji Malick lu rafet am fi ñu war koo wax soxna yi de si mii di doom ci Seydi El Hadji Abdoul Aziz di sët ci Seydi El Hadji Malick di soxna Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidiane mbokkam mu tedd mii di soxna Fatim Mbacké moom Serigne Touba laay wax ñëw fekk si ko fii ci quartier Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mbokk yi damay wax ni xandoor bu demee ci war tukkiwul dafa ñibbi mbokk yi gis ngeen ko mu ngi nii jëwriñ jaagi nii mbokk yi tey Tiwaawan ak ñoo fi daje Serigne Bassirou Sène mbokk yi ku sax xool rafet kontaan nga kii moo fi représenté Seydi El Hadji Malick waaye Serigne Touba mu Diop li nga wax ñëpp dégg nañ ko tey euh, l'islam bég na adduna bég na kuy wax ashhadu an la ilaha illallah bég nga kuy doom aadama sax te doo jullit te xam lu baax ak li muy jur adduna ak alaxira da bég ci jataay bii ci ñaari jëm yu fees ak leer am lante rafetal ko dundal ak bok dundal tarikha yi sen digante dundal diine dundal ngor ñoo fi daje ñaar ñu am ngeureum ndax ki fi ñew di soxna mam fatima Mbàkke ngeureum motax mu liggey liggey bi ndigal moko fi indi ndigalu kan sangam bu baax bu tedd bi jëwriñu Cheikh Ahmadul Qadim, mbokum ñu baax ñep kis doomi seigne touba fi mu Cheikh Moustapha mu Cheikh Ahmad Bachir. Hmm. liggéey jaayante wan gannaaw àdduna jaayante ba kanam ngir ndamul Cheikh Moustapha Bachir ci fii mu ko dëël muy Tiwaawan moo ko may garaatu Baye Fallu Cheikh Moustapha mu Cheikh Ahmad Bachir. Hmm. bu dee Baye Fall bu wér bu Cheikh Moustapha Bachir ñu xam Baye Fall li mu doon ci yoon wi di maam Cheikh Ibrahima Fall. nga xam ni guddeem ak bëccëmam jox na ko Cheikh Cheikh Ahmadou Khadim lu dara desul jox na ko li mu jur jox na ko dooleem jox na ko am xelam. jox na ko juddu bu rafet ba jox na ko lépp soxna Aida moom sëriñ Abdoul Aziz Dabaax woy jur Cheikh Moussa Bachir mi Cheikh Moussa Bachir waxoon ne kenn ëppalewu ma ci sama baaya wax ni ñoom wax nañu yàgg nañu wax ni sëñ Basiru sëriñ maam Abdou Dabaax bu ñu dajee jamono kii sëñ Tuubaa kii di maam El Hadj Malick dina jep don ben. wallahi waxe nañ ko nu ne cheikh musra wane bis ba mu demee ni luma ma lay wax luma xam luma ma luñ ma bolé luñ ma doxlo sama bayi demna ma xam sama digg ak mom ak digganteem ak cheikh bashir dama koy ñaanal fu ma koy ñaanal tiwawan wo tuba wo alquran toglu ay ñam ñew ñu and kérok ñew kër seigne mansour and ak mom ñew ci barabam bi tedd bi laata muy dugg la fa dugg yàgg fa lool ñaan génn fekk fa ki ki nekk fees di shérif bi sëriñ Mansour toog mu ak si ñu xajal ko ni ko yaay borom bis bi sëñ Abdou Aziz Keroog daa mel ni mooy ndaw li di seen jëwriñ mu wax waxam jure ni sama woy jur laay ñaanal maam Abdoulaye ñaanal ku nekk fii ta xat na ma fekk Tiwaawan mu di sama kër lu fa war def naa ko fi ci ay nag def naa ko ci ay togg def naa ko ci sama alali bopp def naa ko ci alquran def naa ko ci ay qasida wo njabot mam eladji malik dudu kenn mu ñew mo fa jang mu jox ko lo xamanteni kenn du ko tudd loola moom la ñaan ñi di fësal wallaay ndeysaan wallaay loolaa feeñaat loloy wone lu bax du jeex lu bax du yàqu lu bax du xuur lu bax day yok moy mhm. jëm yi lillahi yawma nuzulihi متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بسف ملائكه بصرت إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعد عن الجنس من قربان والحور من بين النوافذ في الحمام متفرجات فيك كالولدان وعليك برج حد كساك محمد رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بسف ملائك بسط إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعد عن الجنس من قربان نيجي فيه ci quartier bi nu tuddee Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anu ci kër soxna Aïda mu sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh mu sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane fii ñu toog nag lii ñu wone tey jii l'islam bépp war na cee bég képp kuy taalibe war nga cee bég képp kuy julit war na cee bég toogaay ñaar ñi toog soxna maam Faty Mbacké ci mbaaxam ak bëgg lu baax ak jokkaleeg bokk

ndékkil gàmmu gi jàppal ko bis ni yéen ñi ma bokkal si yéen may seen xarit di seen mag di seen soppe ñu bokk kër gi bis bu kenn mësu koo tardé ku baax kii ci jóge ku baax di borom xalaat bu rafet soxna maam Faati Mbàkke ni fii ni mu àllee waxumal sax dabu ci bànneexu soxna Adis Kolérès ak moom waaye gan yàlla yi fi wàcc bisu gàmmu am fu nu jaar war naa jar ma lii mu dajale képp kuy murit képp kuy Baay Faal ñu ànd ak moom mu jóge wàcc fële dajeeg soxna si sëriñ bu ko gis wala ko gis war nga ko bëgge ñu ànd ñëw toog soxna maam Faati Mbàkke te jëfewul dara lu jógewul sëñ Muntaxa ak sëñ Moussa mbakke naa naawel lii muy jëfandik moom la mag ñi mas a wax nee nañu ginaar yu mag yi réeroowunu cuujee fel xoo kon lii mu def tey wone na ni kër yi benn la moom ci jukkoom bu rafet mu ànd ak ñii ak jëwriñam jii di sunu rak jël oto fu ne ni jëwriñ jóge fa ñu yendoo tey ci naaju tàng wi def ko ba mu àgg fekk si koo xam ni juddoom may na ko mu def loolu ndax ku sa way jur sëñ Abdou Aziz daa baax war ngaa mën a jëf lu baax waaye am na ci jikko boppam nag fexe ba jubóog nit ñi kon lii soxna maam Faty wax ba ko sëñ Abdou ba sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ne sëñ Abdou waxal loo ma njëkk wax ma ànd ceeg yow lu la njëkk wax nga ànd ceeg man yéen ñi firndeel ngeen ko. sëñ Moussa Mbàkke Naawel euh, woote nañu bi ñu ñëw jot nekat xamal ko ni ko nekkaat nañ ci lam ñu digaloon ñu nekk ci. Mhm. te kenn ku ne xam ni fii mu nekk di kër gii fi bi sëñ Moussa am. ak taalibe yi ak njaboot sëñ Basiru njaboot sëñ Tuubaa gépp maa nga ca wetu kilifaam ga sëriñam bi mun Mountakha kon na ngeen xam ni liggéey bi àgg na ca Touba ga nga xam ni soxna si eh, ndigal yëpp fa koy jële ñëpp leeral ko ñoom ñu ñaanal ko si moom mu Moussa mu yàgg ci keppaaru sëriñam bi di woy juram sëñ Mountakha ba yéene ji nga xam ne am na ko ci ama bëggal ko ñëpp ñu jariñu ci bëggal ci yoonu murit ñu jël waaye bëggal ci jullit yëpp ñu jaliñ ci suñu borom bàyyi ko fi ak ñim ko bokkal ak ñim ko àndal ba liggéey ba ba àgg te suñu Muntaxa yàgg fi waaye tamit rakkam ji nga xam ne moo fi nekk ci Tiwaawan di sëriñ Mbay moom mu yàgg fi xalifa yëpp yàgg fi ndax loolu mooy yéene suñu Muntaxa ak ñaanam ak jéegoom jëm ci lislaam yooyu yëpp yooyu yëpp euh, euh, euh, ñu xam ni yéeneem la joo xam ni saa su nekk mi ngi koy digle mi ngi koy ñaan mi ngi koy dox mi ngi koy wax ngir lenn lislaam doon benn ñëpp ànd jariñu loolu tamit ñoo ngi ko ciy dolli ba ñu xam ni fii ñu ñëw tey ci ndigal suñu kilifa rek lañ ko àndee. li moo nekkoon reportage bi ñu leen jagleeloon jëmale ko ci waajtaayu gàmm gi mu nekkoon jëf ju am solo ji nga xam ne kii di soxna Maam Fatou Mbacke bu Serigne Moustapha Bassirou ak soxna Aïda Sida Baax amaloon nañu ko foofu ci Tiwaawan ngir waajee ko gàmm gi àndoon jàkk waa dëkk ba yëpp. ak kilifa yi ci ndigalul Serigne Mountakha daal di amal jëf ji nga xamante ne lu diggante ñaari kër yi di rafetlu la muy Touba ak Tivaouane mu nekk exemple boo xamante ne lu rafet la ci lu yee ndaw ñi la ndaw ñi nga xam ne ñoo jokk ci diggante ñaari kër yi la amal faat aw waxtaan jëmale ko ci luy rafetal ak mbokk ak li boole ñaari kër yi ba waral jëf ju mel nii am kon lii lañ leen jagleeloon ci seen waajtaayu gàmmu Avec Gaia Info, obtenez des informations sûres et fiables.